yërmande la yal na yàlla yërëm ñu yërëm ñu fa la jóg waxatuhu maxfira fi leen toll wante njëggal lépp am ni si biir kon yàlla yàlla antul say bii ci zahir ak ci baat nee na nun famille bi ñu ngi ñaanal yàlla sunu jarbaat topp ak bëri na xale boo xam ne. bëri na xale boo xam ne. am nga noo meloon. am nga noo meloon. wala situation dabe. wala situation dabe. yëpp dañu naan ndax kii moom la woon. loolu da dalu ba am. suñu kanam la juddoo. suñu kanam la juddoo. suñu kanam la yaroo. suñu kanam la mag. ba ko yàlla betteeg tiraat. na mu meloon dem. dara soppeekoo ci moom. loolu ay nijaayam. kon gis jox na la ay baayam jox leen sel ay tantam ay bàjjan waa Pikine fi teew ku ne mën kon ñu ko ñaanal. bi ngay ñëw ñu ngi ci xew bi ah ñu ngi lay. kii mooy Sénégal de. na ko de xam nga ne de 2002 de. Dakar Dakar voilà donc tey li sama teew ñëpp xam nañ ko Pape Cissé sama rakk la. te ñu sekk jàmm. depuis depuis Grèce ñu ngi foofu nañ xamante. te ah. dara dara ñaawul sama diggante moom. donc bi ma wooyee na ma day takk mari donc dama dama taw ñëw teew quoi parce que mari tamit euh, ak nijaayam ay ay xarit nañ depuis bi ñuy nekk xale. donc mooy mun naa wax si doom la si moom tamit. voilà donc euh, di la ñaanal euh, Seydi Bakke. voilà amiin papam di ko ñaanal euh, carrière am. yàlla dimbali ko mu am carrière bu rafet. signé si équipe yu mag. voilà donc yàlla na ko jabaram jabaram bi jib. amiin Seydi Bakke quoi loolu laa ko ñaanal parce que xale bu xale bu yaru la te déggal na ma quoi conseil yi mu koy jox yëpp tey da koy appliqué biir équipe nationale. encore ñaanal ko rek laay def parce que xale bu yaru moom neex na waxal ko. d'accord bu baax macha allah tey mën nañu wax ne référence nga yaa ngi yor sa jabar yaa ngi yor sa famille bari dañ leen di gis tey yan conseil nga yan conseil nga leen sa ñaari doom ñoo dugg ci sëy te ku nekk xam ne sëy sëy yombul yaroo ko ko may yaroo ko may ah. sëy di ko conseillé daal mu muy ñoom ñaari muy muñ ñaari côté yëpp la quoi donc euh, comme li may wax rek sànq yàlla yàlla def barke si sëy bi rek après yaa ngi xaar coupe du monde bi ñëw. incha allah coupe du ma wax fële sànq rek nee na nee na instant yii ñaan yàlla équipe bi def comme ñun lañ fi def dem quart de finale wala dem demi finale wala finale mais instant yii coupe bi. yàlla rek moo xam mais daal nañ def loo xamante ne ñun def nañ ko wala lu ko rob waaw parce du mon du coupe d'Afrique ko bi coupe bi ñëwee ban yëg-yëg nga am dégg naa rek nga tëb ba ba ba génn beneen kër bi dama jooy dama jooy dama jooy lan moo feesal sa xol xam nga rek euh, dama nekk joueur boo xamante ne def naa cinq coupe d'Afrique donc ñi ko def ci équipe dem cinq fois dem uti ndam bi aw ma ko sama rakk yi buñ buñ ko àndee looloo njëkk nekk sama xel quoi waaw moo tax moo tax ma jooy mais nag neexoon na trop quoi yàlla mu am fii dëgg la ñu gis euh, ñu ñu def ci hommage yu bare bare bari rawatina yow ak ki nga xamante ni moo di Pape Bouba Diop match bu mat bu bu ñu matchee rek da gis ne benn Henri Camara mi benn affaire euh, nga yaa ngi doon seetaan ban yëg-yëg nga doon am kontaan rek kontaan parce que xale yi dañu def loo xamante sax xamuñu sax lan lañ def parce que dafa mel ni loolu sax moo gën a motiver Sénégalais yi ñu gën a ñaanal équipe parce que xam nga Sénégalais dafa bëri yërmande donc bu ñu gisee gestion yooyu gars yi dañuy kontaan xam nga gën a ñaanal équipe te loolu dafa jig sax xale yi bon leen ñaanal rek xale yi amuñu seen fay quoi yàlla na yàlla def jàmm Sénégal équipe bi coupe du monde bi muy def nii yàlla na sori quoi. mais Diouf takk na deuxième dame de. waaw Diouf gënee la. <laughs> Ah, waaw ci xale boo xamante ne nii Pisso xale bu ndaw 22 ans ñu yëg la da ciy baax nga ñëw quoi. di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm. yàlla yokk sutura yokk mën-mënam. waaw di ko ñaanal moog jabaram yàlla boole leen moog jabaram. yàlla boole leen xam moom yàlla moo koy tudd yàlla mbëggal seen diggante ñoom ñaar yàlla na ci yàlla def jàmm incha allah rabbi yàlla nekk ay sëy yu barkeel ay njaboot bu góor ak bu jigéen juddoo ci te ñëpp ay ay jul saadix ay jul lu mag a mag a mag loolu daal lañ koy ñaanal mais looy wax ci date bi rëy na de macha allah lan bi date bi date bi date bi waaw ba pare ci weeru koor sooru ramadan nga xamante ni yàlla tënk seytaane yi tënk jinne tënk wax yàqkat yi tënk leen moo tax weeru koor man parce que weeru koor boo ci takk jabar dafa baax seytaane ginneeg nooxóor yi ñëpp lañuy takk ah ah. incha allahu rabbi mbiri laa bi doo mais warugal bi tey yow lan nga ci wax waaw mais xam nga nag jigéen nag lu ñu ko teral doyul jigéen mooy sunu yaay jigéen mooy sunuy lépp waaw jigéen ñi mun ñoo fay jigéen moo tax loo lu waay jigéen loo ko defal la yàlla fay la ko ba bu mën bu doon am cent millions may ko ko tamit. anyway. waaw noonu ñu gis ne jamono ji yaa ngi def beneen concept bu bees ak ki nga xam ne moom moo di King Baba di Baba Ndiaye. ngeen tuddee ko Kër Baba. initiative bi maanaam ci mais nag balaa loolu dama nuyu sama followers yi nga ngi may seetaan ñu ngi may seetaan à travers Snap Instagram TikTok ak immigré may suivre partout dans le di nuyu waa parce que nu ma nu ma mel ñoom ko def melu ma nen nag di nuyu Boña di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm di nuyu Maria Sine may sa bigé may sa bigé Mar la chanteur di ko ñaanal yàlla képp képp kuy téye micro ci àdduna yàlla boo ko raw. avec avec des milliards je le quitterai pas man ak moom dee moo ñu tàkkale man noonu laa mel lawbe laa la yoon laay tooy. waaw xaw ma weex wala nga ñuul. waaw concept boobu mu nekk concept bu nice. kër Baaba nga xamante ne dañuy woo invité xam nga xam nga waxtaanee àdduna quoi tamit. keroog invité nañu Siri Diop yaanaa d'autres trucs yoo xamante ne invité nañ leen tamit quoi di ñaan yàlla sponsor yi ñëw ñu bëri maamaa la ci xaalis tekki la ci mais ci biir loolu projet yi lan la. waaw bu baax a baax rek. ñaan yàlla guddal fan li ci kanam daal mooy dara borom karo bu dara. ana mari li jaaw. Eh. waaw xale bi sëy neexul. waaw dina nga nekk xale. waaw sëy neexul parce que koy ñaanal yàlla yàlla dooleel ko ba moom mu mën a toog ci sëy parce sëy dafa bëri ay yoo xamante ne ne surtout sëy léegi. daa am waa groupe A ak waa groupe B ñoo bëgg a yàqal waa groupe A loolu moo léegi Sénégal moo demee noonu Sénégal bu ñu nee da ngay yàqal sa morom te sëy neexul neexul bu neexee nga toog bu naqaree nga toog xam nga sa jëkkër bu nekk ci ay difficulté nga ànd ak moom parce que ba muy neex yéen ñaar la woon mais neex nga toog neexu nga dem dama leen di ñaanal ñoom ñaar yàlla boole seen wërsëg papa boobu baax la man na xam naa incha allahu rabbi xam naa Rwanda incha allah. ak Medine Diouf mu soxna Jabi Diouf seen. mais témoin laa gis nii de. waaw waaw yell na nag. waaw. ndax euh, Diaw Fara ma Diaw Koor yàlla dogal na maag moom ñu yàgg lool euh, mu dégg lu nekk tamit nag ci sama jëm waaye man it ma dégg lu ne it jëmmam waaye Serigne Baye Jaxate dafa am wax jum wax. mu ne asal lu mën a xew awal ndigal te yaru yow di nga làkk bépp ak yow tey ak ëllëg maa la ko wax am lu olof njaay wax sànq waxoon naa la ko mu ne buñ la tooñee nga muñ yàlla dalay defal ñaar mu yàlla dalay fayu ba pare fay la dalay fayul ci tooñ giñ la tooñ ba pare fay la ci muñ gi nga muñ te Marie Louise Diaw loolu la def wax dëgg fa yàlla ñun wax ci moom dañuy tiis gis nga ni maanaam famille lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy rëy Ousmane Seck da cee mën dara loolu dogoon na gis nga nii dara baa ngi nii ma ne ma ne ma demal coaché léppam rek ma am ci cër nag Marie day jàpp kenn ne ko kenn kenn kenn ñëpp wax Marie du baax waaye yaay bu sonn naa woo leen ma Ousmane Seck woo leen ko bu ma ñëwee ñu tëju ma moom waxtaan en tout cas daal yal na ko yàlla lafal cat yal na ko yàlla sàmm yal ko yàlla aar ko ki nga xamante ne nag mooy baabu siise ngaar yi njar meew tëmbal galaas def ci ndox mu sedd naan sa pour tooy amul mer na mer ñun ñun ñu ngi bëgg daal yàlla jàmm yàgg tonton Mbène bëggal ma jàmm Malick univers info Gallo je vous waaw say neexul. waaw na nga nekk xale. waaw a des hauts et des sëy neexul dañ koy ñaanal yàlla dooleel ko ba moom mu mën a toog ci sëy parce que sëy dafa ñoo ci ne ci waa groupe A ak ñoo bëgg a yàqal waa groupe A loolu moo léegi bu neexee nga toog bu naqaree nga toog xam nga sa jëkkër bu nekk ci ay difficulté nga ànd ak moom parce que ba muy neex yéen ñaar la woon mais sëy léegi da ngay day neex nga toog neexu nga dem dama leen di ñaanal ñoom ñaar yàlla boole seen wërsëg papa boobu baax na man na xam naa incha allahu rabbi Ousseynou Samb xam naa Rwanda incha allah